الحمد وشكري مع الكل بيسارا لو ردا ca kanam Touba univers management commune bu Touba mosquée boutique Total kër Xaadim Sylla et frères ONG Euhlou Café ñoo leen di gunge ci seen ziar Sarsara édition 2022. mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen nuyu di leen jaajëfal baax a baax di leen ziar ci seen journal ziar Sarsara édition 2022. abdi wa sukuri mal kulli bi mbokk bopp xibaar li ci gën a fës ni ki nag mbooloo mu takk ñoom ñoo ñëw fii nga xam ne moom mooy Sarsara ci Mauritanie digganteem ak Nouakchott toll ci téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróomi kilomètres yoo xam ne nii mbokki taalibé yu bëri daje nañ fii jógee Sénégal ak biir Mauritanie eh, ci arrivé bi nag dégg ngeen mbokki taalibé yi wane seen contenté ci biir xibaar yi dana ci ni mu gën a yaatoo mbokk yi xam ngeen ne ci biir xibaar yi ba tey fii ci Sarsara bërëb bi nga xam ne moom mooy bërëb bu teel bi te eh, sunu mbokk naar di ko tuddee Ard Salihin Serigne Fallou Mbacké Mourtada moom nag ñëw na ci bërëb bi nga xam ne ni moom mooy bërëb bu am solo ci ni nga xam ne noonu la fi Cheikhul Khadim nekkee woon mu ñu koy xamalee édition ren bi ñu ngi ko tuddee Serigne Modou Moustapha soxna May Mbacke di seet ci moom moom nag euh, dikk na ci bés bi ak ni ñu ko tuddee maamam euh, ci nu mu gën a yaatoo ci biir xibaar yi daan daañu ko déglu. jàkka ji ak maxdara bi mu àndal architecte bi nga xam ne moom mooy cabinet lamp maam jaara soxna Ndeye Fatou moom moo yoroon liggéey bi moom moo ko taxawal. Euh, gannaaw nag loolu dina ci yëkkati ay kàddu ci biir xibaar yi wax ñu li nga xam ne moom moo jëm ci maxdara bi maanaam liggéey bi xam ne moom moo am fii ci Sarsara. barab bi ba tey sunu mbokk yi ñu koy xamale moom mooy ñu fi dëkkee maanaam waa Maxtamulaana ak waa Jaraariya ak Nabaqiya ñoom ñëpp nag dañoo daje fii ba tey rek kenn ci sunu mbokk naar yi di ñu xamale ba tey ci bërëb bi nga xam ne nii moom la mbooloo mi dajee tey. ñu koy joxale nag ak cérémonie bi nga xam ne amal nañ ko fii ci teewaayu Serigne Sidi Mbacke Mourtada mbokk yi xam ngeen ne ci ànd ak délégation bu mag Serigne soxna maam Issa ci turu euh, ci turam nag Cheikh Abdoulaye yëkkati na fi ay kàddu ci li nga fi jébbale ci ay addiya ak i ci ngir mën a yaatal liggéey bi nga xam ne moom mooy am fii ci Sarsara abdi yi comme ni ma koy xoon ci bopp xabaar yi xam ngeen ne nekki nag biig ci guddi la fi mbooloo mu takk yegg si ci bërëb bu sell bi nga xam ne moom mooy sarsaara jóge fu nekk nag ci biir réew mi waaye tamit ca Sénégal ak bërëb yu wutee nag mbokk yi bi ñu yegsee woote nañ seen kàddu ñu déglu leen ci suñuy micro naataango yi nga xam ne ñoom lañu ñu yebaloon ci mbokk yooyu. la santees nañ ci bu baax a baax a baax waaye di sant nag sunu yaakaar yi tey ëllëg di Cheikh Ahmadou ma Khadimal Moustapha moom mi nga xam ni moom moo waral lii tey jii. ba mbooloo mucc ne euh, di jóge Sénégal wala di jóge benn dëkk bu bokkut ak Sénégal di ñëw di fi teew si fii ngir liggéey bu mu fi doon liggéeyal Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye itam jariñ mbindeef yi nga xam ni ñoom la saa borom dogal ñu wàcc ci kaw suuf kon loolu ba nu sun boom dimbilee ñun tam ba ñëw ba fii amee nañ ko ak cant amee nañ ko ak ngërëm goo xam ni dina am ab tàmbali waaye du am ab yamawaay. sant yàlla suñu borom mu ñu may ñu si fii ci Sarsara nekk bërëb boo xam ne Sëñ Tuubaa nekkoon na fi ñu amoon xamante ñ fi nag yàlla def na nag ñu ñu ne fi tey jii di guddi àjjuma eh, ci weeru. sowaal ah wax dëgg yàlla sant yàlla la ñuy def ndax suñu tubaab bi fi ne bi fi nekkee eh, ba léegi at yi yàgg na lool kon bu yàlla ba yàlla def maanaam barab bi ñu dox ko gëstu dox ko gëstu maanaam ba nga xam ne feeñ na ba mandagal ko ba nit ñi daf mën a de di ziar loolu sant yàlla la ana mur yu bëri ay mag yu bëri yoo xam ne ñëwoon nañ fi ñëw ziar sëñ bi jamono ju metti jamono boobu liñ la def ci yoon wi ci ay jafe-jafe waaye teewutoon seen pas-pas daawuñu gis yooyu daawuñu yooyu gis suñ bi rek lañu naan digmal mm-hmm. moo tax suñ bi defal leen defal leen ci fàgguti fàggute goo xam ne lu kawe njort la ci ñëw ñëwoon fi siyaaru ko fii Sarsara mm-hmm. kon nag rek mm-hmm. euh, di xencu jeexit yooyu di asar suñ tuwaa ñu ko jeex ñu di ko xencu yàlla def ñu ñun tam ñu am tawfeex fii ci barab bi Sarsara ñëw fii tam ci guddi ajuma sant yàlla bu baax bërëb bu sell bii nga xam ne moom mooy Sarsara Sëriñ Fàllu Mbàkke Murtada moom sëñ Fàllu moom nag euh, ñëw na ci di ñu xam ba tey ak bërëb bu tell bi nga xam ne nag fii la Serigne Touba Khadim Rassoul nekkoon lu tollu ci ñeenti at ñu teewlu ay kàddoom ci micro Cheikh Samb. fii nag barab la boo xam ne Serigne Touba daf fee ne woon nga xam ne suñu borom tegoon na ko natt boobu mu waxoon ne su amutoon it dara du baax natt bi Serigne Touba waxoon ne bu amutoon dara du baax su musaana toog di waxtaan ak mag ñi tam ba mag ñi tudd natt bi ngir yërëm ko itam daf leen daan wax ne leen. su amutoon dara du baax nga xam ne kon fukki fukki at ak euh, at at yu bari defoon na ko waaye fii la mottalee yeneen at yi at yi nga xam defoon na ko Gabon yeneen at yëpp fii la ko mottalee muy Mauritanie gii nga xam ne kon dafay mel ne ak ak pay la goo xam ne saa borom moo ko doon fay fii nag ñëpp xam nañ ne wirdu maxfu mawxuus fii la ko fii la ko jot ci ñaar fukki fan ak juróom-ñaari bi mu duggee lixtikaaf ci la ko yonente bi sallallahu taala wa sallam feeñe feeñoo jox ko wirdu wi wirdu woowu mi ngi ko joxe ci juróomi fan yu koor gi nga xam ne bisu ajjuma la tombeel day mel ne ren ji bisu ajjuma la tombeel kon loolu tawféex la te mi ngi ko joxoon ku ñuy wax Ahmadou Ibnu Hassan moo njëkkoon a bokkoon na ci ñi joxe woon boppam fii ci gànnaar kon loolu dafay mel ne kon fii ak fay la kon day mel ne kon murid yi fii saa bu ñu fi ñëwee rek day mel ne kon buñ naan yoon wi fii la sosoo ndax koo fi gis mu yor ab tariixa rek la muy sàkk mooy am ciis laay mooy ndëgër laay kon wirdu woowu mooy ndëgër laay yoonu murit kon defe naa ne kon fii murit yi mooy seen mooy seen mooy seen mooy seen jumtuwaay bi gën a rey soxla May Mbàkke moom mooy ki nga xam ne moom la ñu euh, moom mooy sët ci sëriñ Modou Moustapha nga xam ne moom la ñu tuddee édition ren bi nag moom yi kàddu yu mbégte ak cant ci ni mu ko tuddee euh, maamam euh, ki nga xam ne moom mooy Cheikh Modou Moustapha ñu teewlu ay kàddam ku na xam ne digganteem ak Seexul Xadim ak taalu bi rek la fi doxale woon ndax def naa njeeñam loolu yéen ñëpp da ngeen koy tudd te ak taalu bi rek taxoon ma doon njeeñam ba ko sëriñ bi woot xamal ne ko yow ak nit rek la war moom ndigal sëñ bi rek lay wéyee defe naa ba muy jox sëñ Touba junnit mm. addiyee booba junni yombut waaw raay bee luñ ko ci wax man ko ak yóbbu sëñ ba ca Touba mm-hmm. mooy gëmu sëriñam gi rek moo tax laal son wax borom defal ko loolee kon ñu ñaan yàlla ko yàlla taas si barkeem yëpp lañ am yëg-yëg bii da cee raw rek waaye sarsaara dama naan leen ku fi tàbbi mm-hmm. te amoo yëg-yëg fi tàbbi tey murit da nga am yëg-yëg mm-hmm. ndax uh, rek a fi mën a andi nit kon ku fi ñëw benn doo ko tollanti te fi nii bu ñu fa jógee li muy métti métti dañu yaakamti waxtu wi egsiwaat ba ñu ba ñu bërëb bi nga xam ne moom mooy jàkka ji ak maxdara yi muy àndal architecte bi nga xam ne moom mooy soxna Ndeye faatu yore cabinet bi di Lamp Maam jaara di ñu xamale euh, ni mu liggéeyee bërëb bi waaye ni mu ci jotee ba defar euh, architecte bi ak li mu fu naa la def ci ay projet yoo xam ne nii tamit euh, ci ndigalub Serigne Sidi Mbacke moom la ko amee ñu déglu ay kàddoom ci micro ki nga xam ne moom mooy Mortala Kane. liggéey étude bi nag jàkka ji la ak yeneen yoo xam dool nañ ko ndax bi ñu defalee jàkka ji ah dafa am extension boo xam ne laaj naa ci ndigal sëñ Sidi mi nga xamee ni moom mooy suñu jëwriñ ci biir liggéey bi moom la fi sëñ Mountakha mu sëñ Bassirou teg donc bu ñu naan maître d'ouvrage c'est sëriñ Mountakha Bassirou Mbacké maître d'ouvrage délégué sëriñ Sidi mu sëñ Moutala Mbacké waaw cabinet d' architecture bi nag mooy sama cabinet style architecture maa def étude architecturale bi étude bi nag moom mosquée la mosquée bi nag dañ ci def extension foo xam ne jigéen ñi dañ fay jullee fu nekk nii fi góor ñu jullee la ñuy wane am na fu jigéen ñi di jullee wooku nag dañ cee xalaat ñu mel ni saalixaat yi jigéenu yàlla yi su weesoo loolu am na ay dara waaw maxdara yi nag ñeenti maxdara lañ def ndax sëñ Sidi moo ñu joxoon ndigal ñu def ci ay max dara ndax ci ay case la jànge case yooyu nag ñu jël ko def ko en dur tabax ko kule ko waaw loolu lañ ci prévoir ci maquette bi waaw muy ñeent ñeent at yi fi sëñ Tuubaa def fii ci saara bu noppee am na ay hébergement ak ay dalukaay gis ngeen ay xayma ngeen gis waaw bu hébergement yi paree nag ah ñu ne fii dalu sëñ Sidi la néeg bu nekk am na salle demee am na véranda ñu ne kii dalu soxna maam Isa la néeg bu nekk am na keeg vérandaam kilifa yëpp nañ fa mën a dal ah ah am fa lañ bëgg ci biir ah loo xamee ni mooy remplacer xayma yi. Ardu Saalihin moom mooy bërëb bi nga xam ne moom la ñu nekk nii sunu mbokk dëkkandoo yi maanaam naar yi nga xam ne ñoo fi ñoom ñoo fi seen maam nekkoon ak sëriñ bi te daan ko fekk bi mën naa cee wax Mata Moulana ak Jaraariya ak Nabaqiya ñoom sunu mbokk naar yooyu noonu ñenn ci ñoom du ñu xamale ba tey ak bërëb bi li ñu fi tamit bëgg ak ñoom saa su ne ñun fi doxee ay tànk jéego di fi ziar si ñu teewlu leen. kay man musuloo mënuloo weesu yonent feeñu la jaxaran yóbbante la yóbbante ci jullit yi waaw loolu mayu yàlla la yóbbante boobu mooy wësdul maxuus wërdu maxuus moom la wërdu mooy wërdu murit beneen beneen tariqa amu ko budul murit waaw yàlla moo ko beral Seex Ahmadu Bamba wér boobu du wërdu tijaan du wërdu xaadir du wërdu saadiliya may may boo xam ne bi yàlla moo ko yóbbante ak rasulillahi sallallahu alayhi wa mu jot li ko Cheikh Ahmadou Bamba may yàlla la may yi mu am rek ci baxariya bi waay mayombe ak eh, yi nga fa xam daal ci ci kéemaan yu dul jeex waaw ke Cheikh Ahmadou Bamba bokkul ak ñeneen moom yeneen wali yi seen karaama day ànd ak ñoom mais moom ci karaamam day gën a feeñ man bëgg naa yàlla mu wan ma deuxième Touba fii fii incha allah dina am ayu xew-xewal yu bari te seen ñëw bi kontaan naa ci ba lool te képp ku fi ñëw incha allahu bakkaaram dina wàcc yàlla na ñu gisaat lu bari ci jaam ak salaam ci kanamu Serigne Mountakha yàlla na gudd fan xalifa général yàlla na gudd ci baax a te parce guddaay fanam baax na ci alislaam ak aldina bi yëpp. mbokk yi ni ma ko waxee woon nag ñu ngi jeexal euh, dix-huitième édition ziar Sarsara fii ci Mauritanie waaye nag ci bërëb bi nga xam ne ñi fii lañ doon amalee cérémonie bi cérémonie bi nag xam ngeen mbokk yi ki ko doon présider moom mooy Serigne Sidi Mbacke Mourtala ci teewaayu nag mboolem daayira yi nga xam ne ñoom ñoo bawoo fu nekk ci réew mi ak ci bitim réew ñëw fekke si bés bi ñu teewlu Serigne Abdoulaye Dieye ci turu soxna maam Issa Mbacke ahlu café ak ni nga xam ne noonu la ñu waajalee bés bi ba jébbal seen ab ziar sëriñ Sidi Mbacke ñu teewlu ko. jumaa ji nañu ci daan def rek la ñuy def mooy soxna Ndeye Mbacke nag faaw ma tudd ko moom ndax ab liggéeyam da koo tàbbal ci biir liggéeyam soxna si waaye dane ko soo ma tudd tontam ci sa biir liggéey laa tàbbi te léegi fee nee na ma joxewu ma ci jàkka ji ay milliards du ma bëgg su ma ko amee moom nag dafa yëkkati juróom-ñett fukki junni jox ko soxna si ne ko bis bi ñu tudde maamam def na addee juróom-ñett fukki junni ci jumaa ji am na tam waa APR nañ ko siyaari si woon démb jox nañ ko tonu ciment am na tam ku ñuy wax soxna jaari e, tubaa Azir sëñ Mohamed ca jaayante ba won ca Masalik daa bokk ci ahlu Kebe jaayante woon une tonne jox na ko soxna si su ko boolee nag ak mbooloo mi li nu ko jox toll na ci million million bi tam sëñ bi Mohamed soxna moo jiite commission collecte fonds pour Mosquée Sar Sara dinañ ko teg ci loxoom incha allahu taala ndax ñun bëgguñu bëtt ndigal ni ñu ko digalee rek noonu lañ ko fas yéene defee. mbokk yi loolu moo fi nekkoon ci seen jotaay yi nga xam ne donc moom lañu ñu amaloon ci seen journal Ziar Sar Sara bu ñu jógee fii nag mbokk yi xam ngeen ne daañu leen indil benn édition spéciale ci li nga xam ne moom lañ fi jëlee ci ay ziar ak ay waxtaan ci bërëb yu wuute maanaam bërëb ba nga xam ne moom mooy jàkka ja fa nga xam ne ni maanaam fa la ñaari soppe tase woon kenn ki di xam ngeen ko di maanaam xaadimu rasulullahi waaye itam ki ko fekk si di sangam ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu jox ko fa wérdul maaxuus kon nag loolu yëpp daañu leen ko toppal ak yeneen bërëb yoo xam ne nii mën nañu wax ne maanaam euh, ci euh, armeer ya yooyu yëpp nag sunu reporter yi dem nañ ci bërëb yooyu yëpp ngir maanaam indil leen la fa jot xew yëpp dégtal leen ko di leen ci dikk ci nu mu gën a yaatoo mbokk yi jërë ngeen jëf di leen dig daje ci yeneen jotaay yi nga xam ne amal nañ ko fii ci seen journal Ziar Sar Sara édition 2022. benn bu ñaari na ñaari téeméer na ko jëpp dégg mo yëpp nañ ko dégg fukki muri saade ak juróom-ñeent yu ko yéene te nañu ko ma ma joxeel leen maa ngi ñoom ñu ngi nii wajalilaayi maskani tubaaba ci murit weer wi dee na bu kenn des bul yem ci yow dong soñal ñëpp bu baax ay ci murit tuubaa ca kanam weer wi dee na wajalilaayi fii nag mooy boutique Total Kër Xaadim nekk fii ci route de Mbacké est-ce que xam nga ni lépp loo bëgg wala nga soxla ko muy jaay ci grande surface am na fii ci boutique Total Kër Xaadim waaw supermarché du ko gën a riche fii ci Touba rayon boo dugg nag di nga am li la gënal alimentaire produit d'entretien cosmétique matériel scolaire dañuy jaay ba jaay sac ak fourniture pour élève bi nga xamee ni mooy dem école waaye ci màggal gii li ngeen soxla yépp soxlaatul ngeen di dem ba Dakar ndax bu ngeen ñëwee fii ci boutique Total Kër Xaadim di ngeen am li ngeen bëgg dañuy jaay ba jaay ay vaisselle am nañu itam marque boo xamante ni poroxaan soow la ñu ko tuddee gis nga poroxaan soow mooy soow bi nga xamee ni boo ko ñamee di nga tàqamtiku am nañ ko caakiri am nañ ko ba am ko siwo soow bu 20 litres nga xam ni bu ngeen amee ay bernde fii ngeen di ñëw ngeen jëndee ko ci Touba Total Kër Xaadim muy Poroxaan soow am nañu charcuterie ubbi ci kaw restaurant bu baax restaurant boo xam ni décor ba boo ko gisee macha allah da ngay defe ne yaa ngi Amérique wala yaa ngi France wala yaa ngi Ndakaaru déedéet yaa ngi fii ci Touba am décor am salle VIP bu baax ñu climatiser ko ba mu sedd waaw teel leen a réservé pour seen i conférence seen i réunion seen i cérémonie seen i pause café seen ndaje lu ngeen te soxla rek équipe bu mucc ayib boo xam ni ñëpp liggéey rek la ñuy def ña nga foofu di leen xaar. loolu. dañuy jaay fruits di jaay légumes am nañu ba am lépp loo xamee ni soxla nga ko ci boulangerie mën nga koo fekk fii ci boutique Total Kër Xaadim boutique Total Kër Xaadim ak màggal gi mën ngeen ñëw jënd seeni bernde bégal seeni gan am yool ci màggal gi boutique Total Kër Xaadim woo ñu ci 33 976 03 39 77 899 45 45 wala 76 354 44 44 wala 77 583 17 17 boutique Kër Xaadim nekk dans la ville sainte de Touba. Touba ca kanam Touba univers management commune bu Touba mosquée. boutique Total Kër Xaadim Sylla et frères ONG Eulo Café ñoo leen doon gunge ci seen ziar Sarsara édition 2022 abdi wa sukuri mal kulli bisa law idan duna suqtil inda Sarsara